fidèle ami internet yu Arafat TV ñu ngi amati mbégte bu baax a baax di leen nuyooti waaye tam jël suñuy ñaari loxo ne leen ko jàpp nuyu leen bu baax a baax ci li nga xamante ni moo di la seen leader Arafat TV di am mbégte toujours bi nga xamante ni moom la ñuy am parce que plaisir bu rëy la ci ñun ñu ñëw janoo ak yen daanaka dañuy am xool bu xaw a naqari ci bu ñu toogee benn bis boo xam ne jotaayu partage bi sequñu ko ak yéen mu di acte commentaire tey ñu war a li nga xamante ni moo di nomination wala boog itam euh, vote bi nga xam ne def nañ ko ci li nga xam ne moo di commission yi ëmb li nga xamante ni moo di biir assemblée national ci bureau bi mu mel ni gis nañu ki nga xamante ni moo di El Hadji Guèye bokk ci département wala boog itam député yi nga xamante ni département bu Koungheul la ñu teewal foofu nga xamante ni ci assemblée national donte la député boo xasee ba yegg assemblée nationale département Euh, voilà yebalatu la wala bëgg itam teewoo fa pour département mais nation nga fa teewal parce que assemblée nationale moom la ñuy wax waaye ñu gis euh, mu bokk ci ñi nga xam ne jiite nañu commission ci biir li nga xam ni moo di bureau bu assemblée nationale mu jiite commission éducation euh, voilà sport et du loisir mu doon jeunesse sport et du loisir mu doon lu ama ama am solo waaye itam doon loo xamante ñun yàggoon nañ di joxe argument pour que lan moo tax suwaawu Pastef ci département bi ñu war ko respecté ànd ci ak ñoom mooy euh, gulet euh, bu dee jàll nañ département bu Koungheul am député boo xamante ni am na niveau benn bi ci xam-xam donte la xam-xam yaatu na ñaari côté la ñetti côté la mais am ci loo xam parce que dañ doon faral di gis ci ñi doon nekk ay député ci assemblée nationale doon teewal département bu Koungheul ku nekk xam na ne wax dëgg yàlla peut-être mën nga far ak kenn peut-être mën nga ànd ak diw peut-être diw na ak moom mais nag juste dafa am xam-xam wala dafa am niveau moo tax mu mérité poste bi nga xam ne am na ko jàpp loolu ku nekk ci ñi nga xamante ni ñoom nga war a seqal daanaka day jafe pour mu am parce que bu ñu yëgee li nga xam ne moo di sa limite ci sa capacité ci xam-xam eh, yow itam nga koy wane amaana peut-être euh, fësal li nga xam ne moo di jaagar jaagar yi dina jafe lool ministre boo xamante ni bu tegu ci norme la doon ku respecté boppam euh, jox la benn cër bi ba mën a seq ak yow yenn liggéey kon dañ koy encouragé moom El Hadj euh, ci li nga xam ne moo di poste boobu ñaanal ko li nga xamante ni moo di réussite bii nga xamante ni moom lañ ko ci séntu <coughs> mu def ko ci ba nga xamante ni dañ ciy jógee sens bi nga xam ne jox nañ ko ndaw ñu gën ko ko jox waaye itam sens bi nga xam ne jox nañ ko euh, département bu Koungheul te itam am fu ñu leen doon catégoriser ci wàllum politique ñu xam ne demee naa wax dëgg yàlla changement bi nga xam ne moo am ci Sénégal bàyyiwul département bu Koungheul waaye am nañ ay xale yu compétent am nañ ay xale yoo ni yu am yu am pour xam li nga xamante ni mooy mission bi leen di xaar de même que Awa Dieng nga xam ne moom la ko seqal parce que moom itam wax dëgg yàlla ndaw la waaye gis nañu bu baax baax li nga xam ne moo di euh, détermination bi nekk ci moom waaye tam euh, xam-xam ak itam yarak ak ji ak tey gi nga xam ne nekk na ci moom jàpp nañ ne wax dëgg yàlla mi mérité nañu pour indil ñu résultat boo xamante ni département bu Koungheul tàmmuñ ko woon di am ci seen ay député mooy fexe ba niveau bi fi nga xamante ni fa la war a toll ñu fexe ba delloo ko fa maanaam fexe ba taaru Koungheul taaru département bu Koungheul ci li nga xam ne moo di xam-xam ak respect dignité ñu fexe loolu euh, xam ne ñoo fi weesu et puis ñu gën a euh, taxawu seen askan bàyyi xel ne ñu ngi bàyyi ci benn département boo xam ne maire ya yi nekk ci yenn gox-goxaat yi liggéey leen fa war defuñu ko bëri ci lool maa ngi taxaw ci benn département boo xamante ni am na fi ak commune boo xam ne ñu ngi koy dipee commune bu Maka Yop bu ma juumul ba fii may addoo di teewlu benn commune la boo xam ne ñaari dëkk ñoo fa am courant mu di Madina Dégguy di Santhie Ada ak Makka bi nga xamante ni fa commune bi nekk bu ko mooyee amul beneen dëkk ci li ma xam boo xamante ni am nga courant léegi nag yéen hélas waaye itam Ndeye Awa Dieng ngeen bàyyi xel na département boob moo leen yebal waaye itam ci département boobu itam am na lu ñu soriwul dara ci biir commune bu Missirah bii ñu nekk dëkk bu ñuy wax Meew Ndiobène euh, mën naa ne daanaka forêt classée bi nga xam ne ni moo traversé seen dëkk bi daanaka mën naa ne dafa impacté wala bëgg tamit dafa sookeeloo li nga xam ne moo di seen dund daf ko sookeeloo ba nga xam ne amuñu sax espace maanaam pour que ñu bay dañ ciy déplacé dem ay kilomètres dem ay dëkk yoo xam ne dañuy dem di nawetaani pour mën a am suuf boo xam ne ñu ngi koy seen wet am na àll yaa yu fa nekk waaye nag dañ leen lii foore la léegi nag bu dee ne euh, dafa jar ministre biir wàllu environnement moo xam Daouda euh, Ngom wala comme ça war nañ ci def ay liggéey ñu xool naka la ñuy defee ay jéego jàppale ñi nga xam ne ñoo di population boobu ba ñu mën a jëfandikoo seen suuf boobu parce que Euh, autosuffisance en riz wala boog tam euh, li ñuy woote ci souveraineté alimentaire wala boog itam souveraineté lu mu mënti doon nit ki balaa mu ko mën a am dëgg-dëgg il fallait que mu génn këram dox ay kilomètres wala boog tam dox ay jéego pour mën a am espace pour bay mën ko bayee ci àllub dëkkam mais pour nga bay il faut que nga génn sa dëkk dem ba ci yeneen dëkk loolu tam beneen jafe-jafe la boo xamante ni baykatu Saalum rawatina tund meew njóobeen ak ñi nga xamante ni ñoo seq forêt boobu ñu ngi koy dund waaye itam ci département boobu am na fi yoo xamante ni peut-être ñu ngay ñam ndox mais doyaluñu na fi benn dëkk bu ñuy wax Taïba Thialène ci biir commune bu Missirah la bokk boo fa demee da xam ne ndox lañ ci am doyu waaye te boo fa demee di xam ne population a am a bi te itam mérité nañ ko parce que population ba toll na ko waaye itam nañ ko waaye itam yoon woo xamante ni itam mën nañ ci jaar population ba soxla nañ ko et puis itam nañu toll tax nañu mérité lu ni mel mel euh, naka noonu boo demee dëkk bu beneen bu ñuy wax euh, Aïnoumady Tambédou ñoom itam ba léegi problème mu ndox bu méttee métti moom la ñuy am malgré que am nañu euh, surtout do am nañu comme ça mais dañuy ñàkk ndox lu bare bare bare bare bare parce que lay doxal mbir ma lay doxal surtout do bi daanaka mën naa ne moo nekkul en règle wala boog itam moo dans la norme léegi nag jafe-jafe yooyu lenn nat la ci li nga xamante ni mooy yi département bi am te mën nañ koo lim bu ñu ko doon lim duñ fi bàyyi ko mën nañ ci dem ay dëkk-dëkk yoo xamante ni yii amuñu ndox yii amuñu courant yii amuñu yii taxawaay yi nga xam ne moom la ci seen maire waroon am wax dëgg yàlla bu département bu Koungheul bëri na ci maire yoo ni compétent wuñu xàmme wuñu seen rôle ak rôle li moo di état fa la ñuy bàyyi seen ay warteef wala boog itam li ñu leen wala boog xam ne état moo ko fi ci maa la yoon indi dëkk maa la indil tel jàpp naa ne ak Ndeye Awa Dieng dinañu jël en compte ci jàmbat yu bëri yooyu nga xamante ni seen département am na ko donte lee tey député de la nation lañu mais nañu xam bu baax a baax que ne département bi ñu bàyyi ko député yii fi euh, jeexal ci année yii ñu jógee amu ci benn boo xam ne dafa doon def mission comme ni mu ko war a defee kon da ngay gis nga ne ñoom ñaar daanaka mission bi Ousmane Sonko ak Diomaye yor moom la ñu yor mooy dañuy rectifier ay mandat wu député yoo xamante ni amaana ba ñuy commencé di dem assemblée nationale ñoom sax peut être juddooguñu euh, kon ñu ngi leen di encouragé bu baax a di leen wax ñu gën a jege seen askan rek toujours fexe ba nopp yi ñu amoon avant que ñu yegg ci li nga xam ne moo di assemblée nañ ko yokk def ko ñaar ba ñett ba ñeent ba juróom ba nga xamante ni fu njàmbat di bàyyi ko dinañ ko déglu li ci war ci taxawaay ci jàmbat ci joytu ak fañ ko war a yéegee ñu fexe ba yéegee ko fa waaye tamit nag jàppale leen ci fàttali ni ñi que ne député kenn joxu ko benn li nga xamante ni moo di euh, koppar pour mu ñëw di séddale nit ñi ki nga xam ne moom lañuy ñuy jox koppar bu année bi dee wala boog année waaye jeex mooy maire bi nga xam ne moo nekk ci sa commune moom lañu ñu voté budget ne am lii ak lii ak lii ak lii ak moom lañ la sant pour nga def ko ci année bi pour loolu rappel la rek doon def ñu war ko jeexalee ak euh, li nga xamante ni moo di taxawaay bi ministre bi wàllu communication am ci identifier li nga xamante ni moo di mm, média yi nga xam ne état reconnaître na ko gis nañ nag jur na polémique am na bruit et comme ça mais euh, dans mon analyse dama jàpp ne dañoo am volonté pour defar mais ràññeeguñu bu baax a baax yoon bi nga xam ne fa la ñu war a jaar pour defar loolu bu ma ko waxee dama ko wax en tant que koo xamante ni nekk naa ci milieu bi am naa si as ndiir donte le xale lañ waaye nag wax dëgg yàlla nekkuñ ci woon di gëmmu ñàkk xam li nga xamante mooy li xew dëgg-dëgg maanaam ñoom bi ñu yegsee ministre bi dafa waroon a euh, teg li nga xamante ni di euh, mécanisme fii pour fan la a ba nga xamante ni dina a identifier presse bu loolu passé du dem ci phase publier ab liste mais lan lay def mooy day def descente wàcc ci bërëb yi nga xamante ñoom lañ ko signalé que fii la sama organe nekk ak itam lañ ko signalé que ne moom lañ am ci ay employé wala boog itam naka lay doxee mu dem fa moom ci boppam wala boog itam équipe am dem fa xool ba xam li ñu bindu ndax loolu mooy réalité li nekk ci terrain bi wala déet mais euh, defuñu ko euh, gis naa euh, ñoo xam ne peut-être accepté nañ ko jàlle nañ ko te fekk amaana am na fuñ jaar wala boog itam am na lu ñu bind loo xam ne bokkul ak li am dëgg-dëgg waaye tam gis naa ñoo xam ne peut-être jàllaleeguñ leen xaw ma li tax jàllaleeguñ leen mais mënee su leen a génnee ci espace médiatique ci Sénégal parce que la ñuy def ñëpp teg nañ seen bët maanaam dafa dem ba toll foo xamante ni pour nga régulariser média bi li ëpp daanaka teg ko ci audience ak itam li nga xamante ni moo di bàyyi xel gi la Sénégal yi di bàyyi xel parce que am na organe boo xamante ni yaa ngi dajee ak moom peut-être jox la euh, papier yi koy laaj pour mën a légaliser comme ça mais sañoo ko génnee parce que xam nga ne li muy def ci monde médiatique wala bëgg tam ci milieu médiatique bi espace médiatique bi xam nga ne yaa ngi jox euh, reconnaissance koo xamante ni amu ko jegewu ko te itam ministre bi foofu li tax euh, ñàkk def démarche boobu doon loo xam ne catastrophe la mooy jafe-jafe bi nekk ci média nekkul jafe-jafe wu patron de presse bi maanaam patron de presse bi du moom moo am jafe-jafe pour naka lay dundee wala boog tam pour nangam kañ la ñuy dégg patron de presse mooy bu waree fay impôt fayuñu ko mais kan moo am problème dëgg-dëgg mooy employé bi nekk ci biir di journaliste di ki nga xam ne mooy di technicien kon ministre bi naka la waroon def mooy. Euh, patron de presse bi nga xam ne signalé na ko tel euh, organe signalé ko amaana tel employé euh, nombre d' employé bi mu yor na wàcc sur le terrain dem gisee ak employé yooyu est ce que contrat yi ñu war a am am nañ ko wala déet est ce que salaire yi ñu lay war a fay ñu ngi leen koy fay wala déet est ce que sax ba tey aide à la presse bi nga xamante ni mu ngi dugg ci kër gi te état fas yéene continuer ko ak euh, ñeññet ñi ko Macky Sall doon jox est ce que euh, loolu bu ñëwaan daan nañ ko def fam ko war a def wala déet yaakaar naa ne yooyu yëpp ay questionnement la yoo xamante ni ministre bi waroon na si dem jusqu'au bout mais li ñu gis nii ak ni mu demee ni mooy patron bi la moom ak li nga xamante ni moo di euh, ministre bi yor wàllu communication léegi Euh, ba tey employé bi xamagul moom waaw li nga xam li nga xamante ni moo di jafe-jafem dëgg-dëgg ministre bi jëlagul ko en compte pour que régulation yi li nga xamante moo di espace médiatique bi bu ñu continuer ci lancé bi dañuy dem euh, ñi nga reconnaître di jot seen aide de la presse seen ay employé duñ yëg duñ tinu organe bi si boppam du yëg du tin après euh, ci moment boobu nga jàpp ne yaa ngi def loo xamante ni mooy mooy li wuute ak ñi fi nekk li ñu doon ñi fi nekkoon li ñu doon def fekk daanaka amul naa ne li doon yoon mooy ñu wàcc ci terrain bi étudier li nga xamante ni moo di li leen jox ak li nga xamante mooy li nekk sur le terrain parce que boo wàccee ci benn organe di nga xam lim la déclaré ak li nekk ñoo bokk wala def parce que euh, sénégalais moom bu xasee ba am yéene bu mu am wala boog itam am lu mu xas maîtriser sañ na si dem ak toppale boo xamante ni voilà yaa ma gën a xam et puis am na ñoo xamante ni euh, peut-être man ne ñàkk reconnaître dana ci bokk ci cause yi ñàkk am carte presse wala comme sa euh, parce que ñun ñëpp ñu ngi fàttaliku sëñ Saliou Guèye biñ ko fi tegee loxo ci jamono président Macky lan lañ doon wax mooy amul carte presse nationale te carte presse nationale boobu période bi mu ñëw jàpp naa fekk na ñu xàmmee journaliste yu bëree bëri ci Sénégal léegi kon loolu dafa dabe ci li nga xam di métier bi léegi ki ko am ci période boobu boo bëggee jàpp ne loolu moo war a doon cause wala boog itam li koy faagaagal wala li koy tënk pour que mu mën am accès ci li nga xam kaw bu euh, impliqué ñi nga xam ne ñoom la war a impliqué lépp li nga xam ne moo di liggéey bi nga xam ne moom lay moom la moom la intention bi lenn la mooy raxasaat euh, milieu bi xoolaat ñi nga xam ne ñoo si nekk te euh, amaana nekkee wuñ ci naka su dul noonu wala comme ça mais nag nañ ko teg si yoon boo xamante ni dañ mën a xàmmee dëgg-dëgg liñ ci war a jubbanti ñu jubbanti ko parce que lu su loolu da ngay tàbbiwaat ci régime yi fi nekk liñ tàbbi woon ñuy jéglu baax a baax ci wala euh, analyse yu wala ñàkk pertinent yi wala comme ça mais warteef la ci ñun saa su nekk ñu ñëw janoo ak yéen def suñu actu commenté di jaajëfal Baye Tafa ak internet yi nga xam ne toujours dañuy gën a abonné waaye itam di commentaire dañuy soññ ngir que ñu gën a jàpp gën a góorgóorlu ñoom it ñu sàkku ci ñoom ñu gën a jàpp gën a góorgóorlu euh, gën di partager lien bi voilà di abonné di activer cloche de notification yi pour que lépp lu yegg si ci kër gi rek ñu mën ci jot waaye itam sem bi da ciy baax lool waaw boo seetaanee rek nga laal sem bi sem bi mooy baaraam bi def nii ñu ngi leen di jaajëfal jox leen dig ëllëg incha allah jaa ngeen